waaw Black Friday nag du dara loo xam mooy li nga xamante ne ay euh, promotion lay doon mais yoo xamante ne en général par vendredi bi lay am suma juumul Friday mooy vendredi euh, jour vendredi rek lañ koy def bu njëkk ba Europe lañ ko gis lañ ko doon gën a gisee euh, ci fin de période période bu nekk par exemple début période par exemple sedd bi buy jot dañuy def li nga xamante ne moom mooy Black Friday duñ ko def benn fan dañuy def par exemple 4 Friday euh, par exemple mois de novembre bu fekkee ne quatre vendredi la dañuy def quatre vendredi yoo xamante ne dañuy def Black Friday. léegi le principe moom mooy c'est casser les prix. casser les prix. ok soldé pour ñi nga xamante ne aussi bëgg nañu yenn affaires yi te amuñu lu prix yu cher yu ñu ko jëndee yooyu dañuy daal di casser les prix carrément. des fois da ngay gis bu dee euh, Europe loo xam ne day jël 20 euros mun nga dem ñu jaay la ko 2 euros. trois euros wala 4 euros genre yooyu noonu. mais nag lenn moo ci am Black Friday bu jotee pour nga am lu baax il faut se lever très tôt pour ah, nga dem ci lolu amna ño xamantene da ngay ren cinq heures du matin dalen koy jaral ñu daal di dem bu fekkee ne da nga mëna a jënd benn pull cent euros bo amé benn cent euros mën nga am sa benn sachet bo xamantene di ci mëna am yéré mais lolu c'est les euh, grandes surfaces ah les grandes surfaces lu ci mel ay Primark ñoo koy jaay uh-huh. par exemple ki mën naa ko wax Auchan yi parce que France euh, Auchan fa la jógee ñëw fii Auchan yi nga xamante ne dañoo am ay genre euh, habillement ñooñu ñoo koy jaay lépp loo xamante nit daf koy soxla dañ koy jaay ci surtout ci <laughs> si ay yu baax lay am ay dàll yu baax ay sac yu baax ay maquillage dañuy tout tout tout lépp la jaay ba dafa benn temps par exemple dañuy joxe ne six heures du matin et dañuy arrêter 15 quinze heures ci 6 heures ba 15 h dañuy gaaw profito de da ngay gis benn boutique boo xam ne stock lay def hein. mais heure bi bu jotee dara dootoo ko fa fekkati <laughs> boutique bu vide nga fay mm-hmm. fekk d'habitude am ñi nga bu dee ay dàll dafa am ñoo xamante ne ñoom dañuy am problème ñi nga xamante ne seen tank dafa rëy ñooñu ñoom ils elles sont obligées sax laay parce que jigéen ñi d'habitude ñoom ñooy ñoo ñoo ci gën a dem <clears throat> da leen di jaral ñu teel a dem parce que pointure yu mag yi moom mooy gën a njëkk a jeex parce que nous, xam nañ ñun africains dañoo rëy tànk tubaab sol 38 ñun 40 la sol parce que seen dalle fausse pointure la. Mhm. des fois da ngay jënd 40 41 nga sol ko yow 40 parallèlement ñi yi nga États-Unis 38 yow 41 mu di lay parce que voilà léegi nag Black Friday bi yamatul fi nga xamante ne moom mooy ci pays occidentaux yi rek dafa ñëw Sénégal am na ay boutiques yoo xamante ne grande surface la ñi nga xam ne dañuy jaay ay télé du ma tudd seen tour pour éviter def pub bi parce que damay bañ tonton Seydou daal di ñëw. fii de toute façon nous on a importé tous les concepts qui marchent d'Europe et des États-Unis de n'importe où. voilà ah, il faut être à l'air de voilà quoi. Euh, ay euh, année yi si <coughs> <coughs> pardon année yi si ñu bëri xamuñu ko woon mais Black Friday bi fi peut-être pub bi comme ni mu comme ni nga parce que Black Friday buy am Europe événement la événement lay doon. <laughs> wax mu Black Friday bi yi dañ koy surtout bi dem ay jënd seen ay couettes jënd seen ay de lit daal di jënd seen ay bougies de décoration yi nga xamante pour seen néeg télévision yi nganda yi télévision yi yëpp dañ koy jënd ci Black Friday wala gars yi dañuy pour jël voilà image yaa hein. ngi nii gis nga mi ngi nii dañuy da di jaral xeex da di jaral sax dañuy dem di ji première porte ku a première buntu bi ñu njëkk a ubbi ñoom dañuy dem tànn li ñuy eh, tànn daal di dem lu ci site Amazon bi Amazon par exemple dafa am site yoo xamante ne lu ci Amazon moom moo gën a siiw ci site yëpp. c'est le leader mondial. voilà da ngay toog nga commander sa benn affaire. te nag lépp foofu c'est moins cher da ngay gis xale ji pinceau yi nga xam ne dañ koy jaay comme ay maquillage fii ça ça coûte ici ay 15 mille dix mille foofu ay 2 euros 3 euros ñu daal di koy jaay te da ngay fay par carte bancaire mhm. deux jours wala trois jours ñu daal di ñëw livrer la ko <coughs> des fois aussi da ngay gis benn produit boo xamante ne Amazon fay jar lu cher Mayte day commandé produit bi au dernier moment mu daal dem désister léegi nag bu désister man dañ ma koy da ngay gis ñu bind dañ koy soldé mën na euros vite fait ñu di la koy jaay euros wala 10 ñoom seen produit lay ah, marché noonu lay doxee Amazon boutique bi nga vente en ligne bi na dox lépp la tout il faut dire aussi que Amazon ils sont partis d'un concept simple dañu jël ay mhm. au prix d'usine amuñu ben personnel bu ñu fay et puis surtout que voilà quoi ça veut dire que le, le coût de revient de, de, des produits le revient très très très très très, très moins cher. très moins tax nag. Euh, ñoom aussi ils euh, moins cher euh, voilà voilà exactement. et des millions de d'unités hein si te on dirait que ñom dafa am ay usines yo xamante ñom ñoom la parce que tay di bo commandé ben yéré né leen dama bëgg tay M dañ la nan amul mais dans quelques jours. inchallah dinañ la jox ben date bo xamante bu jotté même heure tac livreur bi na ñëw sa biir kër indil la ko. c'est pour ça qu'ils sont leaders bu la foo fekkul mu ñëw tegal la sachet bi foofu parce que ñëpp xam nañ ne France bokkul ak Sénégal wala yeneen Europe dëkk yi bokkuñu ak Sénégal. mais fii dañ koy def mais li ñuy gën a def ci Black Friday mooy li nga xamante ne moom mooy ay matériel yoo xamante ne pour kër la électroménager. voilà yooyu la ñuy def. ay cuisinière ay micro-ondes ay mixteur affaire yooyu. man daal gis naa benn quatre mhm. marque bu la francs au lieu de 175 mais lan mais lan problème

dofuñu. xam nga la ma problème bi. c'est un concept en fait tubaab lépp lu muy def boolewu ci caaxaan ak. tappale mais fii moom ñun nag dañ ñoo bàkkee benn affaire muy caaxaan ak njuuj njaaj. dëgg la te lu tax ñun ñu bàkkee ñu ko dañ koo fekk si ñun. gis nga kenn du gis aal di dem rek ñu ne aal dafa diw par exemple laari ñu ne laari dafa ñàkk fayda xamaluñu ma dara man maa leen ko won moo tax ñu taxé ma da ñàkk fayda mm-hmm. ñun nag dañ koo moomoo lépp lu ñuy ñuy xasee rek dañ koo gis ci ñun tubaab bu la nee tey laay dee day dee lu mu la wax daf koy daal di def moo tax seen euh, Amazon bi da ngay toog fii Sénégal daal di commandé par carte bancaire même bu fekkee ne mënuñ la ko defal par GP da ngay joxe par exemple sa numéro sœur wala sa cousin wala kenn koo xamante ne xam nga ko fa ñu livré ko ko fa vite fait après nga daal di si jot mais pourquoi pas Sénégal mënuñoo def fii xam naa dinañ roy c'est bien pour ñi nga xamante ne yow yaa ngi gis li nga xam ne cuisinière bi intéressé na la nga jënd ko idée bu baax la ah jënd nga naan ma lan voilà nga roy ci li nga xamante ne mooy Black Friday bi mais roy nag du nduroog pur mënuñoo roy ba dàq tubaab yi li nga xamante ne parce que ñoom dañoo sérieux tubaab lépp lu luñ ko mën a wax lépp lu muy dugg dem ci daf ciy def à

non non dama dama am benn bu cinq. kii bi c'est que c'est que. Euh, bàyyi ma xar mu ndaw xam nga xar mu mag dafa baax boo ma invité invité mayeteeg sëy naa ñi am na bu cinq feu mais boobu xola boobu pour kii la pâtisserie la bay bu leen ma wax loo waaye tamit mooy affaire yi ñu def une péto en tout cas daal man li ma li ma li ma def comme constat di ñëw ci par uh-huh. exemple laare li muy wax par rapport ak euh, Black Friday bi uh-huh. euh, par exemple li mu doon expliqué ci communication bi nga xamante ne dafay am ci yeneen dëkk yi en fait quand c'est un événement comme c'est c'est un événement en fait dans les autres pays Sénégal fii c'est dommage que ce soit pas un événement parce que y a une personne un groupe rec mooy communiquer là-dessus Ben, groupe rec mooy liggéey là-dessus c'est-à-dire que kon déjà rek dans le au Sénégal les commerçants ils ne savent pas vraiment comment travailler parce que si bu avez genre système bu mel non, am ben structure bu ko créer je pense que nous pourrons nañ mën top, même ligne mhm. après reste à voir comment ils vont se débrouiller pour avoir une possibilité et une solution yi nga xam peut-être structure boobu mal, am parce que vous avez xoolee Black Friday bi mu amee fi Sénégal ba avez ben structure beaucoup fait fi créer ñoom kese ngay dégg ñu créer Black Friday ñoom kese ngay dégg ñu communiquer ci Black Friday parce que ñoom ñoo ci gis seen intérêt. Mhm. alors ce qu'ils font c'est que et surtout qu'ils veulent déstocker. voilà alors ce qu'ils font c'est qu'ils vont trouver ces commerçants là pour ne pas faire de la publicité ils vont ils vont trouver ces commerçants là commerçants yooyu ñoo participer ci Black Friday ils nga xam ne dañ organiser alors que ce qu'ils ne savent pas mooy que ñoom commerçants c'est une bop. bopp bu la neexee mën nañ créer seen Black Friday. oui mais promotion. voilà justement c'est des des sortes de promotion Donc ngay Sénégal fi ñaata magasin ñoo fi ibbi tey di a ay prix excessifs. excessif xëy nga dégg des ñu taf seen buntu magasin yëpp solde solde solde ah solde. c' mhm. C'est une occasion pour ñoom tey ci Black Friday Ils ont ñu participer quitte à dagg casser seen prix yi jaay seen produit yi maanaam vider seen magasin yi. tu vides ton magasin tu ramènes d'autres produits mais da ngay gis koo xam te ne mi produit mi dina def ci biir magasin am cent ans. Hum. du ko wàññi. du ko jaay du ko nangu jaay. léegi yow tu perds de l'argent pourquoi faire. après mu ne dëkk bi doxul après mu ne dëkk bi doxul. dogguma la du ko wàññi du ko nangu jaay. te bu ko jaayoon dix cinq francs du ci perte parce que jaay na ba génnee bénéfice am ba paré mais c'est-à-dire que dañu dem ba mujj bi da fay melni gëm du di yàlla la xamul lu mu doon alors que ça c'est des occasions yo xamantene normalement tu aides les gens qui n'ont pas trop de moyens à pouvoir se procurer des produits hein? un secondo toi-même tu déstockes ta boutique pour amener autre chose ah du neuf et du neuf mm. mais dañuy tok jël si da ngay des fois nga dugg magasin fek fa article bo xam fay poussière poussière a pënd ka lan parce que bagn nañ ko génnee ci magasin bañ nañ ko jaayee casser le prix quitte à saraxe waxee ko sax am na ñoo xamante ne qu'est-ce qu'ils font fii y a des gars yoo xam ne ils s'en sortent très bien parce que dañuy jékki-jékki rek seen magasin yi dañ koy vider génne ko ci bunt hein? def ko genre euh, naka lañ koy waxee comme liquidation totale Total tegal la ko foofu si bunt bi ku romb jënd mais loolu ba tey c'est bien mais tey c'est ces genres d'événements comme ay Black Friday c'est le moment où chacun devrait pouvoir créer son Black Friday comme le font en Europe

politique de communication mais nga xam dañ koy du man quoi mais comme mon porteur de voix là comme lila a dit, wax. Mhm. donc dafa am ay yeneen nit yoo xam ne dañ dañ ci waxtaan. Mhm. donc ñoom bu fekkee ñi déglu. politique bi ñu ko nit ñi ñu koy commencer découvrir ça passe pas jàllul c'est-à-dire ils viennent ils te disent que par exemple dañuy jaay par exemple téléphone bi ñu lay vendre ça par exemple à à à à mille francs ils te disent que Black Friday à partir de 11h par exemple wala voilà, à partir de midi. information bi. voilà à partir de midi pile donc c'est le nid jaay produit c'est-à-dire yow oh, tu là non seulement dañuy. jël sa temps dañuy kii bi doo dugg. Mhm. Euh, site bi mais même boo xasee ba dougou. par exemple on te dit à minuit à minuit pile Il y a minuit pile par exemple nga dougou ñu ne le stock épuisé. c'est-à-dire du benn du ñaar du ñett du ñaar man dama def expérience bi il faut aussi nous ajouter parce que loolu day yàq marché bi. Euh, au fil et à mesure ñu muy am. day dem ba day confiance. voilà disons comme par exemple. li mu bind nii plus hein. rien quand ils font stock épuisé pourquoi il c'est que des fois les nit ñi dul comprendre gis nga parfois di nga dem ci benn magasin fekk produit bi sur place ñu bind épuisé amul tax parce que les gens aussi achètent pas et ne récupèrent pas automatiquement dañ koy denc foofu ba après ñu doog a ñëw jël ko. Bah, est-ce que comprendre loolu dañ ko war a bañ est-ce que comprendre li may expliquer. si maa ngi comprendre dañu ne dañu ne par exemple télécommande bi ñu ne Black Friday bi ça débute à à midi pile. Mm, mm-hmm. on te dit que à midi pile dafa am 50 articles. waaw yu télécommande bi ils vendent ça par exemple en un euro exemple. Mm -hmm.

4 secondes après. il remet dañuy a même produit mais prix cher mais mais mais mais Al boutique ñi ngi euh, Liberté ville Thiès ainsi de suite nous, depuis 5 ans nous 7 ans. am na yoo xamante ne surement mi ngi ci seen stock yi ji soluñu ko jaayuñu ko defuñu ko dara mais pour ñu gagner seen xaalis mën nañ ko génnee def ko Black Friday. participer participer ñëpp daal di ku nekk daal di si gis sa bopp. boo naree bokk ci genre Black Friday les gens refusent de payer. pour bañ a fay. parce que pour ñom buñu fayé dañuy perte alors que ils ne comprennent pas da ngay fay nga jaay sa nga déstocké sa sa kii bi jar na ko soo ko yow nga créer sa bopp propre Black Friday sa bir magasin def ko solde solde oui Black Friday ko chaque vendredi nga solde sa bagage nga gis les gens vont venir acheter ñu ngi ñuy won ñu informer tout à l'heure que il y a un restaurant à Thiès beaucoup de restaurants à Thiès beaucoup de restaurants à Thiès qui font le Black Friday chaque ah vendredi dañuy casser prix moy manam mmh. tay nit ñi dañuy ñëw lek bu suur ba àjjuma bi mmh. imagine taa nga wara débuter ce week-end lekk ba sa bir fest ah. week neex rek ci waaw gis nga su la neexee sax nga defaa emporté commandé emporté weekend bi nga gàddu ko naa ngi yóbbu sa kër boo yeggee yoo yore micro onde nga réchauffé naa ngi aj c'est des avantages que les gens peuvent avoir avec ce Black Friday là alors àll avant ñu jàll si people looy tëjee. voilà tey lii lañ leen indiloon comme sénégalais yi ñoom tamit dafa am loo xamante ne dañ ñu ko bàkkee ñu bàkkoo ko ñun tamit nañu éviter yooyu rek. parce que loolu rafetul. nañu jéem a def bu ñu nee lii la nañu ne lii la. aussi ñi nga xamante ne. aussi ñoom ñi ngi waa ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi Europe surtout étudiants yi nga xamante ne dañuy bëgg lu nekk ñu am ko surtout ñi nga xam ne dañuy doog a dem ay star la ñuy doon et tout. mbumbaayu <laughs> France bi moo leen di jàpp. nañu profité ci li nga xamante ne moom mooy Black Friday bi daal di jënd article yi nga xamante ne moom la ñu soxla pour. bu ay yéré ño xam lu ñu bëgg ay yéré sedd ay accessoires pour euh, greffage ay lisseur ainsi de suite ak loolu lépp loo xamante ne dañ ko soxla mën nañ xaar ba Black Friday bi commencé ñu daal di koy jënd moins cher te fi mu toll nii nag ñoom dañuy am temps parce que ñëpp xam nañ ne ñu xasee bay ñëw di dugg ci première semaine décembre bi ñoom dañuy jël fête ba début janvier bi dinañ am benn un mois. am na benn conseil bu ma leen bëgg a jox en tant que étudiant ancien étudiant. Mhm. mooy bu leen lekk seen xaalisu loyer bu courant ba ak chauffage ba. dafa ñu dina jàppale seen argent ngeen war a dépenser mu jeex tekk li si des bu leen ko laal parce que foofu tuumalanke dafa gaaw. non ñoom du ñu def ñoom du ñu def loolu. no duñu étu léegi dañoo muus. no seulement duñ ko jaay ba pare temps bu ñu am bu libre dañu dem ci McDo yi dem ci ay grande surface yooyu nekk fa ay rayonniste dem liggéey pour. ma am as tuut xam na ma la ma wax. man xam naa li nga wax bu baax ku ko ci def rek bu soobee yàlla yontu bi di xam nga lan ngay mujjee clochard ngay mujjee di tëdd si <laughs> Euh, non, je te dis, merci beaucoup Larry. C'était très enrichissant comme échange. Vraiment, si qu'il va faire au Black Friday